salaamaaleykum amee fidèle internet télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne bi nga xamante ne euh, moom ngeen taamu euh, muy euh, télé Sénégal TV comme niñ koy defee nag saa su nekk di dugg ci réew mi di seeti ñi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi nekk ci réew mi di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne ci la ñuy yëngu muy seen wàllub liggéey waaye it di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy actualité réew mi tey nag ñu daal di seet si kenn si ñoom muy Serigne Medoune Thiam Serigne Medoune caam nag tey mooy suñu invité du jour moom la ñu fas yéene waxtaanal ci ay point yu bëri ci biir li nga xam ne moom lay liggéey waaye it dinañ waxtaan ci li nga xamante ne mooy actualité réew mi xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu daal di dugg ci suñuy laaj tontu sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal di la jox sa wàccuwaay waaw a billahi a sari a rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa a al-ali azim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alim hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen fay di leen wax bisimilah di leen safoo di leen wax mm-hmm. ne kër gi seen kër la mm-hmm. delloo asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu àdduna yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, jërëjëf sëñ bi ginnaaw bi nga nuyoo ñu daal di ñëw ci suñu première question ndax nag gis nga jamono ji li nga xamante ne noonu la réew mi yëngoo eh, gis nga eh, tournée bi nga xamante ne kii di Ousmane ko mi ngi koy def jamono ji jóge Ziguinchor utal si Dakar waaye ñu gis ne tournée boobu bëri na coow lool mu daal di koy tuddee caravane de la liberté waaye gis nañ ne coow li bëri na ci lool tey lan nga ñu mën a wax ci tournée boobu ban jàngat nga ciy def. waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziarawaat. di wax ne rek si euh, gis-gis mm-hmm. damay wax ne buñ xamoon fitna li muy yee danañ moytu fitna buñ xamoon ne fitna li muy yee dañ moytu fitna ndax yàlla dafa dafa dafa yéntu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadiis ne mm-hmm. fitna naayimatun mm-hmm. ndax yàlla nee na rëbb na ku yee fitna ci moo xam si côté pouvoir bi muy côté opposition bi parce que lu ciy métti rek si askan wi lay dal xaj na ñoom mën nañoo jël vol dem feneen mën nañoo dem voyage dem feneen waaye ñun ñi nga xam ne nii Sénégal lambda bi nga xam ne ñoom amuñ yenn moyens yi nga xam ne ni bu ne woon këtt na jonn tamit mm-hmm. sa kër ngay toog say waajur moo si gaañu mm-hmm. say doom ñoo si gaañu say dangam ñoom lañu war a sóoraale mm-hmm. li may wax ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk war nga woyofal sóoraale askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parce que Sonko pour mu jëli li nga xam ne moo nekk président tamit mooy mu jëli li nga xam ne moo nekk nguur gi tamit nara jaar ci ay néew jaru ko Macky Sall pour mu continuer li nga xam ne maintenir li nga xam ne moo nekk pouvoir am mu nar a jur ay néew jaru ko kon kenn ku nekk war na xool li nga xam ne nii mooy njëriñu askan wi nga def ci loolu. Mhm. côté boobu moom lañ ciy wax. Mhm. te lu ñu gis ci li nga xam ne moo nekk côté wàllu bisu la première. Mhm. xaj na danañ ci ñëw. parce que loolu ci wàllu xam-xam ci côté yenn yi danañ ci wax incha allah ci dinañ ci ñëw. Mm. Euh, tey euh, li nga xamante ne noonu la euh, caravane bi demee tey yow tey soo doon duut baaraam kan ngay duut baaraam exactement nga xamante ne moo ci xew ndax gis nañ ne am na benn moor boo xamante ne am na au niveau de Kolda. xañ na dañ naan benn lañuy mën a waxaale rek hmm. mais fii ba la première képp ko am basiira war nga xam ne affaire bi du yem benn kon boog lu ñuy mën a wax mooy bu li gënoon hmm. mooy mu bañ a am hmm. parce que fii ba muy yeggee dakaar ba bañ naan jour bis bi ñëw na li mu mën a taal kenn xamu nu mu toll yaakaar naa ne Ousmane Sonko ci boppam moom ci boppam sax dana réccu ko noonu lu tax mu am ba bis bi ñëw incha allah yàlla ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan yàlla na yàlla na yàlla nag yàlla na yàlla def si jàmm yàlla na yàlla def si jàmm ba nga xam ne nii problème du am mm-hmm. mais problème bi mu nar a jural réew mi wala problème yi mu nar a indi ci tàkk-tàkk wala ci safara wala ci mm-hmm. li nga xam ne moo nekk mm-hmm. ñoom ñu koy ci sax xamuñ fu mu jëm doy na waar ah, tey eh, kii di kii di ni ko waxee mi ngi wéyal li nga xam ne mooy yoonam comme ni nga ko waxee bu xamoon li ah, hmm. hmm. eh, ñu ngi Sonko génnee eh, ndax gisoo ne ñoom ko deful woon yenn yu bëri du xew xam nga départ bi dama la wax ne ñoom ñaar ñëpp la muy état bi parce que bu waxee mag rek moom état bi yëpp la wax hmm. parce que moom mooy li xam ne moo jiite état bi yëpp bu waxee moom bu waxoon bàyyi ñëpp bàyyi bu waxee def leen ñëpp def waaye dafa am loo xam ne nii gis nga li ñuy wax ñaari kuy yu bokk benn mbalka dafa mel ni ñoom ñaar loolu lañ mm-hmm. nee na ñaari bokk benn mbalka waaye ñoom a nekk ñaari kuy yu bokk benn mbalka mm-hmm. il faut problème am mm-hmm. kii dana du ma bàyyi kii tamit du ma bàyyi léegi nag te ñoom ñaar mën na bañ ñoom ñi muy mooy population bi moo tax ma ne la comme léegi li nga xam ne moom mooy oote nit ku nekk jéemal a fexe liy oote jàmm nga dox ci loolu àdduna bi loolu lañ ñun Sénégal loolu la ñu a xamee Euh, dama wax ne man damay wax ne Ousmane Sonko maanaam mënoon na jël volam ñëw dakaar kenn du yëg ñëwam am na loo xam ne ni buñ ko ko naree teg loo xam ne lu métti la Sénégalais yi ñoo jóg taxaw ne lu da am hmm. waaye am na loo xam ne bu naree am nag Sénégalais yi ñoom ñoo ci yëg coono. sénégalais ñoom ñoo si a yegg ñoom ñoo coono bi yëpp li ne ñu seen yoon nekk ñoom ñoo si am problème waaye ñoom ñaar ñoom ñaar moom bañ a am benn jafe-jafe mm-hmm. ah, moo tax mu def caravane bi muy def xool xool doole waaw nattu doole nattu doole na mën na nekk waaye man mënuma ko tuddee noonu sax waaye mm-hmm. ndax nit ku nekk booy boo boo amee lu lay xeelaal mm-hmm. war nga xam ne doole yow doole bi nga yor askan wi moo ko yor doole amul kenn koo am askan wi moo am doole te askan woo am doole ñoom ñoo ciy pertaat dëgg ndax dégg sax jur si ñoom lay. ñoom lay jógee moo dégg ko benn doomu ministre bu gaañu. buñ blessé sax dégg ko wala doomu doomu wala doomu politicien boo xam ne gaañu na si amul. Mm-hmm, mm-hmm. kon ñi si gaañu mooy ñi nga xam ne ni ñun ñii nii ak suñuy rakk ak suñuy mag su suñuy mm-hmm. doom ak suñuy noonu la demee rek ñoom ñoo si ñoo si am problème. mais jàpp nga ne caravane bi comme ni mu ko commencé ndax dina dina egg si Ndakaaru si jaam ak salaam. si liñ ci jot a jaam ak salaam nee naa la na gis nga problème. te fii ba ñuy waxee le premier nañ seetaan ñu xool ñi ngi ñaan nag yàlla na yàlla def si jàmm waaye Eh, lim si ñu wane nekkul si ñu jàmm. nekkul si ñu jàmm. Mm-hmm. dëgg la mu ngi noonu kon nag ñu jëm ci li nga xam ne mooy le premier eh, bi nga xam ne ci la ñu yóbbu li nga xamante ni ci la ñu war a joxe verdict li nga xam ne mooy procès boobu doxoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr. Mm-hmm. tey lan nga ñu mën a wax ci la ci premier boobu ak verdict bi nga xam ne sénégalais yëpp mun naa ne àdduna wërngal këpp ñu ngi koy xaar ndax nag procès Adji Sarr Ousmane Sonko dafa sax dépassé eh, Sénégal àdduna wërngal këpp la ndax bu ñu xoolee même reporter yi nga xam ne dañuy jógee bitim réew dañuy ñëw reporté si li nga xamante ne mooy euh, procès boobu. moom la àdduna bi yëpp ay xool Sénégal a mhm. boo seetaanee télé yi nga xam ne moo nekk sous région bi Afrique fii mhm. seen débat yëpp léegi débat Sénégal boo xoolee télé européen yi nga xam ne nii ay boo demee ci France ak yeneen yëpp boo xoolee maa ngi seetaan na démb yu si mhm. bëri seen kii yëpp parce problème bi yëpp mooy Sénégal la ñuy xool fi toll nii lii nag yàgg na am Sénégal ñu ne dana am am ba lool nag la ñuy ñaan mu amaat. Mhm. yal na yàlla def lépp soppali ko def ko muy jàmm. Mhm. waaye daal li ñu gis ci ay signes. parce que waxoon naa ko nee na am na sama benn vidéo boo xam ne yàggul maa ngi koy wax maa naan amoon na sens bu nekkoon le 3 ci Sonko lay ëpp doole. parce que foofu mhm. ci wàllu chiffre booy xool chiffre. dafay am loo xam ne nii nii booy xool euh, Ousmane Sonko boo ko boo doon xool euh, day nekk adadam boobaa day taxaw taxawaayu xaw yi maanaam am force. mais bu dee ne jour comme le premier. dafay nekk loo xam ne nii. foofu dafay nekk loo xam ne jour euh, même ñiy seet ci li nga xam ne moo nekk ramdu mm-hmm. boobu sept mooy taxaw parce que boobaa mm-hmm. neuf du fa taxaw boobaa sept mooy taxaw seet na kenn ku nekk xam ne ne euh, mm. dafay nekk doom boo xam ne mm. doom bu xonq la mooy doom boo xam ne dret la mm. moo tax nga xam ne ni ñaar yooyu ma ne noo mën a def ñaar yooyu mooy safara dana am dret waaye nag nit ñaan yàlla yàlla si waaye li ñuy gis te nga xam ne ku mën a xam mën a jàng li nga xam ne moo nekk xam-xamu ilmu mm-hmm. li nga xam ne moo nekk mm-hmm. ne moo nekk sax côté mm-hmm. euh, wàllu ramdi côté boobu noonu bu dee côté boobu noonu mën nga wax ne euh, wàllu yooyu noonu ñaar yooyu bu dee sax xam-xam mi ngi ciy wér rek war xam ne sii ñu wane deret dana safara dana te yàlla na si musal yàlla na si yàlla def jàmm yàlla musal kay loolu la ñuy ñaan kon daal datu le premier bi baaxul ci Ousmane Sonko dara man na man xam nga Ousmane Sonko bu ñuy wax a nekk moom rek parce que moom daanaka li ñuy wax ay du yem ci bopp borom. ay du réew mi la wax rek. Mm-hmm. dañuy wax ci réew mi rek la ñuy wax. Mm-hmm. ndax lépp ci doomi réew mi la. Mm-hmm. bu dalee ci moom ci dal. bu dalee ci kenn ci population bi si doom réew mi la dal. est que du est-ce que du est-ce que du tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi dañoo gis loolu xam ne jour boobu noonu buñ ko si defee dinañu am lu ñu bëgg peut-être parce que ñoom it xam naa ne dañuy dañuy dañuy def seeni mbir mystiquement xam nga nguur xabla li ñuy wax xabla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo jàngee taarix jàng siira xam na li feeñal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci seetkat warxatu ibn nawfal ñi nga xam ne jàng nañ taarix xam nañ ne moom moo njëkk bi nday xadija géntee géntam nga ci moom la dem mu wax ko ne ko bu dee kii nar a ñëw ëllëg ni nekk sa sa sa sa jëkkër moom lay feeñal na moom mooy yonent yonent mooy yonent bu mujj dana nekk sa borom kër te loolu kooku seetkat la mm-hmm. buur bu njëkk bu njëkk avant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foo gisee buur bu mag da nga gis seetkat bu mag boo jàngee taarixu firawna da nga ko mm-hmm. gis boo ta jàngee taarixu mm-hmm. yuusufa mm-hmm. da nga ko si gis te avant yonent sax da ko si gis ba ci sun maam nii nga xam ne sax ay ceddo nga xam ne jànguñ kenn ku nekk da nga ànd ak bu wér boo xam ne dana la wax ay tegtal yoo xam loolu moom a kenn sañu ko mm. la kon yaakaar naa loolu leer na kon ñu daal ñëw ci li nga xamante mooy wàllum liggéey bi mm. eh, nag ñu gis ne dafa am chiffre yoo xamante ne tudd nga ko léegi ci li nga xamante ne mooy wàllu procès bi ah, ñu bëgg ñu bëgg a xam ah, li nga li nga wax nga indi ñu ci yenn si ay ah, firnde ci wàllu chiffre. waaw xam nga dama la wax ne la. Mhm. wàllu lasraar. Mhm. bu dee ne si côté chiffre boo xoolee. Mhm. la première. si première lan la. sixième mois. waaw sixième mois égal. sept mooy nekk sept. boo xoolee ñi nga xam ne dañuy jàngaram ramli. moo nekk chiffre bii lay taxawee mm-hmm. chiffre bii lay taxawee mm-hmm. chiffre bii nag toujours ci côté relation lay wax mm-hmm. ñoom ñaar lan la mooy diggante ñaar ñu ko seq lan la ñoom ñaar lu ñu dugalante affaire yooyu la bis bii la moo nekk lii nii te chiffre bii chiffre bii nii chiffre lan lan la mooy suy chiffre euh, safara la parce que tomb yi damay wax nit nit ku nekk lii la mooy dafa am nit euh, ñeenti façon yi moo am ci doomu aadama mooy naari yu comme nii exemple euh, turabi yu comme nii maa yu comme nii hawaa comme nii lii yàlla doomu aadama lu mu bind yëpp si lii la ko bind muy ci jour yi muy ci semaine yi muy ci nit ki même waxtu yi dafa am lii nii am na si nit koo xam ne nii fi mu toll nii nii niru naar yu la jour bu demee ci projet wala mu dem ci xëccoo wala mu dem ci outil jour boo xam ne jour trois bi la jour ba du am lu lii nag dafa am ci ay affaire effet yu muy joué ci rôle yi ngay joué ci signe yi muy wane Mhm. loolu moo tax ma ne la jour kii nii dafa xonq moo tax ma ne la bis bi mhm. nañ ci séentu loolu noonu mhm. moo xam nag parce que léew gis rek sarax mën na ko changé sarax ak ñaan lu mënta changé amul waaye liñ ciy séentu ti lim taxaw bi mu taxawaay mooy taxawaayu deret la taxaw taxawaay bu xonq la taxaw mooy taxawaayu safara la taxaw mooy ñaar ñaar yoon kon xanaa kon dañu li ñuy njort mooy am lu ñu sénégalais ak àdduna ñu bëri di njort muy ni eh, condamnation moo nar rek génn ci li nga xam ne mooy mooy verdict bi man moom du ma wax te laaj nañ ma si ay yoon ma ne leen man moom li li may gis ci état. Mm-hmm. si côté yoon duma ci wax. Mm-hmm. waaye man li may gis si sama xam-xam si sama côté laay wax. Mm-hmm. sa xam-xam wanu la ndax dañ koy condamné wala. nee naa la am na si sama yenn waxtaan yoo xam ne nii nee naa la gis naa ko. bu amul taxawaay dëgg. gis naa ko ñu mënate ko. wallaahi alazim te loolu dama ne la bu amul taxawaay dëgg waaye dama ne la ñaan ak sarax lu mënul amul mën na lu ne kay yan sarax nga mën a nga a wax déedéet loolu moom sa man moom nee naa leen man du <laughs> <laughs> <laughs> ba may jàngi damaa sonn gëstu mhm. mhm, mhm. lépp lu may liggéey léeg nit oo ma ne ma nangam nangam parce que nii nii may wax ak yow nii waxtu yi may wax ak yow nii am na ñoo xam ne ñi oo pour jàmmi mi pour mbir mi daal te loolu ñu ngi liggéey ñu ngi ciy liggéey ñu ngi xanaa ci côté état bi la ñi ngi ñaan daal réew mi yàlla def ci jàmm daal loolu daal la ñaan yàlla def ci réew mi jàmm duñu wax ne ñenn ñenn la waaye ñi ngi ñaan daal réew mi yàlla def ci jàmm mm. ndax jàmmi réew mi si la jàmmi ñëpp nekk bi nekk mm-hmm. kon la euh, kon euh, ñu daal di jàll rek yi ba tey ñu des rek ci li nga xam ne mooy wàllu wàllum ñaan mm-hmm. tey gis nañu façon waaye man nag dafa mel ni tableau bi moom maa koy maa a gis man façon ñaan ak seet jërëjëf xam mm. nga damay wax rek dañoo toll si jamono joo xam ne nii mm. bu ñuy wax rek am nañu la ko dàq foofu la waaye li ëpp solo mooy xam-xam nga wane xam-xam mm-hmm. àdduna bi foo lañ toll parce que mbiru sëriñ léegi ñëpp a jóg doon sëriñ mm-hmm. moom business la boo xam ne dafa yomb wallaay boo ne boo ne ay ca rek nañ dem waaye dafa nekk loo xam ne damay wax ne gis nga ñun ba ñuy suñu waajur di jàngal lasraar mm-hmm. maanaam ci côté wàllu xaatim bii rek am na si ñoo xam ne si lañ xaatdee bàyyi addu ndax metti <laughs> am na ñoo xam ne si xaatim rek si lañ xaatee bàyyi. Mm-hmm. ndax lii la wax moom la wax carré magique. Mm-hmm. français yi loolu la wax carré magique. Mm-hmm. parce que moom boo ci dugalee li ci dugal moom xanaa loo xamul parce que fi mu toll bu dee ne dama bëgg a nopp comme façon ci wàllu nopp. laa bëgg diggante boo xam ne dafa am problème. waaw naa utiliser façon yii mooy rakkul hakim. bii nii nga xam ne moom ñu bëri xam nañ ko ci wàllu nopp. kii da ngay ñëw léegi di jo di noobal nit ki nit dana mm-hmm. dama am problème sama relation mm-hmm. fii nii am na ñoo xam ne ñu toog fii nga toog fii nga leen di daggal xaatim mm-hmm. fi nga toog balaa ñuy jóg ki ñi daggal xaatim mu oo leen fi nga toog balaa ñuy jóg mu jàpp leen ah, mais nag nekkul chaque jour nga koy def mu jàpp mm. du loolu waaw lay waxal maanaam wàllu xaatim nu mu garaayoo nu mu bëree nga mag ñi dañuy wax ne xaatim bu dee nga ko man ko boo ko liggéeyee ba pare jarul wirda mm. liggéey nee nañ wirda xaatim pour yàkkamti la mm. waaye ñun comme suñu jamono dañoo nekk jamono yaakamti jamono ji nit da jox léegi oola ne la suba suba mu oola ne la affaire bi def fi mu toll nii ba léegi waaye ndaw si temps yi ne mm, mm, mm. dafa nekk jamono yoo xam ne nit ñi toog duñ ci xaar dara loolu moo tax mm-hmm. lii nii bu dee ne da ko xam maîtriser ko si mm-hmm. côté bii nii mm-hmm. li may wax lépp loo xam ne si côté noob la moo xam benn nga xam façon bi nga xam ne moom ngay noobee ki nga xam ne dañoo am problème nii dafay nopp nit koo xam ne nit ku weex la nga xam façon bi ngay nopp mhm. blanc la dafa xam ne da nga am noo koy noobee wala koo xam ne du jullit mhm. dafa am façon boo koy noobee muy comme mhm. exemple yi ñuy utiliser bi fa buxita nga xam ne gars yu bëri xam nañ ko ñu bëri xam nañ ko si côté boobu noonu ñu bëri xam nañ lii nii am na si façon yoo xam ne nii comme koo xam ne dafa da nekk ak moom ba si kanam mu jékki-jékki dem waaw mooy ku fay wala jëkkër joo xam ne dafa fàq gàdd gàddaay daw Mhm. yooyu yëpp dafa am wala jékki-jékki rek affaire dem ba si kanam affaire diis góor ñi waaw kay loolu moo tax bari ci ñu si xam <laughs> <laughs> léegi nag loolu moo tax nag bu ko defee am na si façon yoo xam ne nii duñ génn loo xam ne nii dara loo xam ne dafa nekk loo xam ne lu xaraam la wala loo xam ne nii ci mm. ay sobe la leen alquran la te dafay nekk kun fayakun jóoni jóoni lay nekk mm-hmm. xam-xam yu wér bii mm-hmm. nii barki démb maa ngi siy jàngale benn xaatim maanaam nit koo xam ne dafa tëju ba mënta am dara. Mhm, waaw koo xam ne dafa jékki-jékki woon affaire am doon yëngu jékki-jékki la taxaw. Mhm. lu nekk laal nga ko lu nekk nga ne sangoo naa dem naa fu nekk ak. Mhm. fekk li nga sangoo baaxul rek. waaw mooy wàllu ubbeeku gi waaw kay moom ci côté boobu la xam nga euh, wallu sangat dafa am ay catégorie dafa am loo xam ne moom la ñuy wax mooy déblocage. déblocage am dafa am yooyu noonu. wala moom la ñuy wax ibtaal ci arab maanaam toj liggéey ci wolof. comme noonu bokkul ak li nga xam ne mooy euh, radd mooy mooy retour en l'envoyeur maanaam comme léegi nit ki dara def dara mu mm-hmm. dellu ci moom mm-hmm. yooyu dafa am ci yoo xam ne moom nga koy liggéeyee mm-hmm. am na yoo xam ne moom ngay défendre moo xam ne moom ngay défendre mooy kaaraange kaaraange dafa yoo xam ne nii dañoo niroo ni ñu koy waxee te fekk bokkuñu bokkuñu nit ki am na koo xam ne dafa ñëw li war ci moom eh, instant boobu nag mooy luy dindi affaire yu nekk ci moom mooy ibtaal loolu ngay liggéeyee ci moom am na façon bi mu toll nag foo xam ne bu fa rombee wala loolu dañ na ba pare li mu war a def mooy mu jéem a indi li nga xam ne mooy kaaraange bu bëggee nag li nga xam ne mooy radd mooy li nga xam ne nit ku def si yow mu dellu si yow loolu tamit beneen mbir la loolu moo nekk façon yooyu léegi nag nit ki pour nga am ubbeekaay wala nga am yenn càngat yu sa yaram bu neex mm-hmm. te loolu amoo ko daf lay indi mm-hmm. jafe-jafe waaw indi ko ay gis nañ sax ñu sangoo bayre ñu tëj leen kaso du jeex mm-hmm. parce que am na si càngat yoo xam ne sax même sëriñ si dañ koy wax même sëriñ si dañ koy wax. Mm-hmm. lu dul ne yow nga xam li nga war a ci càngat gi. mooy yii nii dafa am yoo xam ne baat yii nii. Mm-hmm. dañ lay wax ne la lii ak fii nii parce que nit ñi booy wax léegi ci xam-xam ñu bëri mm. dañ koy copier da ngay jékki-jékki ah, boo may wax du ma nangoo wax ci yenn yi façon yi waaye waaw kay loolu loolu mooy tax xam <laughs> nekk moom moo mm-hmm. boo defee tey dara suba suba nga gis fukki nit def ko te fekk xañ na mën naa ci yow lañ ko jëlee mooy boo ko defura da nga am jafe-jafe mhm. xam nga li may wax nee naa ne am na ci bayre yoo xam ne nii amul njëriñ mhm. loo deful sax ñu ne yaa ko def ah, bayre am na bayre yoo xam ne tey foo romb ñu ay coow rek ngay mm, nekkee coow rek coow rek koñ bi yow a siiw a siiw te amuñ mm. ma benn béy waaye coow li ma si jëlee damaa mujj taxu fu ma dëkkoon <laughs> coow lu béy moom xam nga béy doy na coow ah, coow coow lu mooy loolu xam nga loolu amul njëriñ maanaam maanaam dafa am loo xam ne mm. li may wax nit ki Euh, am na ñoo xam ne dañ naan la na na naa siw rek. Mm-hmm. naa siw mm-hmm. rek nag moom. Mm-hmm. fexeel lu ñëw rek da dina nga ko dégg. wallaay dëgg la waaye lépp loo xam ne da ko nit ki li koy def ci wàllu sëriñ. ki nga xam ne moom moo lay ñaanal war na xam taxawaay bi muy taxaw ba nga xam ne. bu dee ne si côté boobu. war na man a fexe ba nga xam ne yow. lépp loo xam ne lii gàllankoor la bu ci war a nekk mu ne la man kat nii laay liggéeyee. boo bëggee dangay def nangam ak nangam. door a def nangam. Mhm. mooy tax boo ko defee doo si am benn jafe-jafe doo fi am benn jafe dëgg la kon yaakaar naa loolu leer na. Mhm. ñu ñëw nag ci wàllum li nga xamante ne mooy néew kàttan muy euh, li nga xamante ne mën nañ ne jamono ji moom dafa lëmbee réew mi. Mhm. te gis nañu ndaw ñi la gën a sonal sax que ji que ni ñi nga xamante ne ñooy mag ñi. sunu garab yi daanaka xale yi koy gën a utiliser. waaw waaw. man loolu daf ma jaaxal. na waar. te li si bari man li ma jaaxal mooy xale yoo xam ne amaguñ jabar lay doon. waa lan moo waral loolu sëñ ah, moom li ñuy wax hmm. Euh, machine sax dafa am loo xam ne nii moom nga ko war a teg machine bu war a jël benn kilo. Hmm. nga koy teg lu mat ay fanweeri kilo. Hmm. kooku bu yàggee. machine bi amaat amatiseur yi bàyyi. foogu bari waaw ma wax kay boobaa ah, leer na nañ yaakaar <laughs> wax loolu leer parce que hmm. am na loo xam ne nit ki boo waree daw cinquante. ne xaaral ma daw cent. bis dana ñëw dañuy wax ne kuy reeree sa kuy képp koo xam ne da ngay ndékkee sa añ. bu añ jotee da fan fande. da nga fande moos xale yu bari balaa ñuy am jabar fekk na pare nañ.

règle boo gis am na exception loolu la mm-hmm. wax. Mm-hmm. parce que parfois nit ki mën na nekk feebar la. Mm-hmm. feebar bëri na yu koy waral nit ki mën na def accident jëlee ko si am ko si. nit ki mën na nekk sax feebaru biir parce que jàngoor yëpp mi ngi dalee mi ngi dajoo si biir surtout hémorroïde ñu bëri ñu néew kàttan léegi dafa bëri moo tax traitement hémorroïde ñu si bëri boo ñëwee lu ma la njëkkalaaj ndax yoroo hémorroïde bu dee da yor hémorroïde ma traité léegi nag kooku bu dee yàlla dimbale na la amoo loolu nekkul wéri yaram mm. nekkul leneen ak leneen nekkul stress mm. jamono ji xam ne nit mm-hmm. man na dox ba jéggi tali bi du yëg te loolu moo tax problème yi bari mm-hmm. ba dina koo xam ne sax mën na nekk amul problème mhm. waaye problème stress moo ko jàpp rek waaw day am day am loolu moo tax mais côté boobu noonu moom mhm. alhamdulilah garab yi mhm. euh, ñi fi macha allah yàllaa ngi siy defal tawfeex li may wax rek liggéey moom fajkat moom il faut nga am sutura noonu la aduna demee dëgg la dëgg la noonu la kon ñu daal di ñëw rek si suñu dernière question muy euh, wàllum këyit ndax dañuy gis ne am na ñoo xam ne dañu bëgg këyit pour tukki wala ñu bëgg këyit pour leneen euh, mais a amul nit ku kuñ ciy jëflanteeg ba pare yàlla defal ñu ci gàccee nag li ñuy wax nag yàlla na moom nangu ñaan mm-hmm. yàlla nag mooy nangu ñaan waaye mm-hmm. ñu ngi ciy def ay ndam yu bari mooy ci côté wàllu passeport yi ñu ciy liggéey mm-hmm.

daaw yàlla defal nañu sutura gis nga man euh, euh, dafa am loo xam ne li may ñaanee mm-hmm. bu ma la wanoon fii maa ngi fi yor big yoo xam ne jeexagul big yoo xam ne ba may dem phase re sama yoon bi nii dama ko mm-hmm. yóbbaale yëpp mm-hmm. dama jël yëpp big yëpp ma yóbbaale ko phase sama fukki fan ak ñaar yi fa def yëpp chaque jour bu ma ñëwee dama ciy def benn lim ci adat si ñaan pour wàllu ñi ma war a ñaanal ci wàllu examen ma jox leen ko parce que nit ki nit ki bu nit bu la yaakaaree dafa am façon boo xam ne nii moom nga war a doxee loolu moo tax àq noonu parce que am na loo xam ne nit ki surtout élève bu la joxee weccatam ba pare nga dem lekk lekk pare dafa sax ñaaw moo tax liñ ci yàl nu léegi la sax ñu perte si ñaan gi mm-hmm. waaye loolu jaral nañu ko parce que li ñooy wax ndamal sëriñ mooy ñaan mu nangu wallaay dëgg la mooy résultat mhm. waaye ndamal sëriñ nekkul naan ay maa wax mhm. loolu sax du du ndam moo tax chaque jour ñu vaar leen di waaw kay amul ndam li que sëriñ boo waxee am ban njëriñ war di war a wax am dara mu am waaye waxoon naa dara mu am kon mhm. wax dëgg la te muy dëgg ndamal sëriñ li may wax dëgg dëgg dëgg sama papa dafa doon wax dane ndamu mooy résultat dëgg la nit ñëw na léegi ne la damaa bëgg léegi dama taxaw naa nii sama doom dañ ko war a tëj suba nga def léegi mu gis. ok mhm. loolu mooy mbiru sëriñ dama toog léegi sama jabar dafa dem léegi damaa bëgg mu ñëw. Mhm. nga liggéey mu ñëw mhm. loolu mooy mbiru sëriñ waaye ay eh, wax wax ju dul jeex. <laughs> loolu moo tax nag léegi ñuy fexe di ñëw di wane lan mooy xam-xam ñu wane nag lii nii nekkul loo xam ne nit day toog rek. lu ñuy tàmbali lu ñuy tàmbali la xam-xam la boo xam ne dañ ko daan jàng ci ndaw ba ni ngay nekkee mag di ko jàng. gëstu yi nga ci war a gëstu yi nga ci war a def yëpp nga def ko. loolu moo tax ñu si ñun toog bi ñu toog tamit loolu moo tax ñun duñu toog nit ñi duñu gis sax lu bëri duñu génn dëgg la parce que lu ko waral mooy doo jël soxla jàmbur yoo pare dem nekk ci hmm. ñu bu baax hmm. euh, sëñ Medoune di la remercier hmm. euh, ci euh, waxtaan bu am solo bi nga xamante ne tey seq nañu ko ak yow di la bàyyi nga tàggatoo waaw jërëjëf di wax jërëjëf waa Télé Sénégal di leen ñaanal yàlla yàlla yokku yàlla barkeel yàlla dem ba nekk ni ñu ko ooyee li nga xam ne moo nekk Télé Sénégal Sénégal moom télé mm-hmm. Sénégal moom jël ngeen tur bu gën a rëy yàlla yàlla barkelee ko noonu rek <laughs> amiin macha allah defal ñu tawfeex di wax fépp fu Sénégal nekk ñu ngi koy mm-hmm. nuyu di ko gërëm di ko wax mm-hmm. yàlla na yàlla defal ko jàmm waaye yàlla na oote jàmm ndax jàmm si la lépp xaj wallaay dëgg la di ulil islam sa tantoma tawfiq ila billah asalaamaaleykum wa